dalee nag jàmm mbokk internet yu seen TV wax nag ci rapport élection yi fi ci Sénégal ñu ne nag am na ndax initiative jëm ci législative présidentielle bi léegi ki nga xam nak mom moy Mamadou Lamine Thiam bu groupe parlementaire libéral démocratie et changement bu assemblée nationale sénégalaise mom nak dinañu càmbar ci tey jile fi nga xam mom moy assemblée nationale proposition de loi bi nga xam day soppi article 31 bu constitution bu Sénégal bobu la proposition nak la muy suggéré ñu dakk élection présidentielle yi nga xamné japon nañ ko ñaar fukki fan ak juroom ci weeruk février ci at mi ñu ne ba ci ñaar fukki fan ak juroom ci weeruk août ci 2024 ngir rek tontu ci dysfonctionnement ya ak constatation yi nga xamné ne daal nay entouré processus électoral bi boobu le préambule bu constitution bu Sénégal nak muy souligner droit à une égalité ba tax nak ñu war sé nak sëgg ñom ñi nga xamné ñoom ñoo féetee ca foofee di assemblée nationale moom mooy député yu Sénégal yi ci loolee nag lañ leen di xaar jëm ci boobu lépp wàll fi nga xam ne nag moom mooy ci Sénégal ndax nag daxaat nañu lii nga xam ne moom mooy boobu lépp processus électoral ndax loolee nag day tax nag ñu gën a mën a fàggandiku ci les proposition de loi nak processus électoral bi nga xamné en cours nee nañu nag ay incident ak constatation mo concerné ñu éliminer li nga xamné mo wala sax ñu valider di candidature yi noonee nak dysfonctionnement technique ak administratif na contrôle bu parrainage ak lacune yi nga xamné ne mu koy sentu ci fichier électoral jëm ci électeur yi la bobu proposition de loi nak day leeral conséquences yi jëm ci jafé jafé yi rawatina nak crise institutionnelle bi nga xamné ne ko nañu ko jamono ji fi ci Sénégal ba tax président de la république Macky Sall moom génn rek né dàq na élection yi à une date ultérieure Tan guñu nak ban bés lañu ñu wax jëm ci yooyu les élections fii ci Sénégal ak numu ci mënta démé. ñi nga xam ne nag ñoo ci kujje ga mom, maire bu foot lañu def ginnaw nak dogal bi nga xamné président de la république Macky Sall daal dina koy jël ngir dàq yooyu les élections ci ay waxam nak nee na ay dysfonctionnement la ci dal dé sentu nous nag ñu prévenir euh, l'olé jëm ci instabilité institutionnelle ak ay troubles politiques Nous xamné ne mën république bi une initiative législative qui appeler à ce que ñu def révision complète du processus électoral Nous loi bi nak mu proposé dafa prévoir une dérogation bu alinéa premier article 31 bu constitution bi muy prolonger période électorale bi 25 août 2024 ci jamono président de la république nek en exercice de continuer à assumer ses fonctions ba installation bu son successeur Mme dal ba 25 août qui di